dal leen ak jàmm ci xibaar yéen i kaay réewum Sénégal kan moo koy sauvé waaw jamono ji nag réewum Sénégal dafa nekk ci guddi gu bët setagul dañoo mel ni ku toog ci nen nañu dem seeti yéen bi nga xam ne nag moo di Sud Quotidien Sud kay du xamal ne loolee lépp rek li ko waral moo di nga xam ne nag moo di Ablaye Wade góor ga ca Versailles gannaaw ay kàddu yu sens yu tàng jëru yoo xam ne yëkkati na ko ci benn vidéo yéen i kaay bi ne leen maa leen dikkal kay ca mbir yàgg na mu demee ca vidéo ba moo jiite réew mi di dogal njiitu réew mi jamono ji mooy def la ko neex bu dee lépp loo xam ne jëm na ci élection yi nga xam ne moom la ñu dënmal mu daal fexe ba koy xajamal yéen kaay di vox populi di ñu xamal ne Abdoulaye Wade kay teg na plan de guerre waaw plan de guerre bu saf sàpp la fas yéene teg waaye nag ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal mi leen di woo ci soulèvement populaire waaw maanaam nañu jóg fi jàmmaarloo ki nga xam ne nag moo di Macky Sall defanteeg moom ba mu saf saf mu ne nag ca yooyee plan ci suba ga am na leneen loo xam ne yi tamit dinañu ko amal waaw yéenekaay bi du am ci Sénégal waaw quotidien di xamal ne kay Abdoulaye Wade amul kenn koo xam ne wax na dina dina ko jàppale waaye daal fii mu teg tànkam bu ko teggiwul lenn rek moo ko ñor muy ruubee élection yi yéenekaay bi di l'observateur di xamal ne Abdoulaye Wade kay lenn rek moo ko ñor muy jongante njiitu joxe kàddu yooyu nag daanaka yéenekaay yu bëri moo koy fësee di xam ne moo di vox populi di kat ci lu ni moom la bëgg a def ci réewum Sénégal ne moo di Abdoulaye Wade waroon naa yi nga xam ne nag moom la jël bu ko teggiwul mel ni daal dafay def contrôle à distance Mimi daaneel kàddu yi nga xam ne moom la Mimi Touré yëkkati daal di sampab laajam nag Abdoulaye Wade gi nga xam ne da koy ndax woo xam ne jàmm ak salaam rek la ñu bëgg la ñu bëgg moo di ku ci nekk daal di balaa yàgg dina wàcc fi nga xam ne moo di réewum Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekkee ci PDS ak yeneen i alliés fas yéene nañoo taxaw ngir gunge ko ci xeex ca jamono joojee nag ñi nga xam ne nag moo di juróomi candidat yéene kaay bi di libération di ñu xamal ne ku ci nekk nag yaa ngay doxal seen campagne na mu waree bu dee Macky Sall yéene kaay bi di soleil national di ñu xamal askan wi fu nekk fu nekk la ñu woon ngir fekke ji mitin bi nga xam ne Macky Sall mi ngi ko doon amal foofee daanaka tourné la kay ndax gannaaw foofee bari na ay jaar na fa bu dee nag Ousmane Sonko moom ma nga nekkoon ca diwaanu Kaffrine maître Madické Niang nekkoon ca Matam professeur Issa Sall moom te nekkoon ca Mbour Gueye Idrissa Seck ma nga woon ca Kaolack candidat yooyu nga xam ne ñooy laaj kenn ci ñoom di ki maître moom nag ba mu demee ca Matam ndaje mi nga xam ne moom la fa woote woon daanaka mbir ya moo ay nit li bawol 24 mitin bi nag Macky Sall mi ngi ko doon amal ci Mbàkke gannaaw ba mu jàlle bàyyi na fi coow lu rëy ndaxte yenn ci ay responsable politique yoo xam ne ñoo nekkee ci Touba jamono ji nag dañoo mer ba fëtt kenn ci ñoom di soxna Astu Buri Mbàkke soxna si di xamal ne jamono ji am ne ñëw ba foofee amul nel na lu muy def di tudd maam xari Mbàkke mel ni moom dong moo fa nekk soxna si nag ne jamono ji Macky Sall ñi nga xam ne ñooy wax ak moom waxuñ ko dëgg de waxuñ ko dëgg soxna si ne réalité yi nga xam ne ñoo nekk fii laa waxuñ ko soxna si nag nee na àpp na ko ba fii ak ñetti fan des ci élection yi waaw waaw mbaa du doy bëgg a dem en tout cas daal ak lu mën di xew soxna si Mbàkke ne njiitu réew na xippi ay bëtam xoolaat ñi nga xam ne ñoo ko nekkal fii ci diiwaan ñu nit nañu xippi suñu bët dem xool journal bi nga xam ne nag moom la ñuy wax sunu làmb jamono ji nag moo war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo jamono ji promoteur yi ña nga ba balaa dinañu ko tëgg